di kontaan bu baax ñëw bi ngay ñëw fii Guédé sant nañ yàlla bu baax juli jeent bi sant Serigne Touba di sant sëñ Galas mi bi ñee ñëwee ba ñun ñu ko wax suñu njàmbat ndax ñun waa Guédé ke sonn nañ lool ñun jigéen ñi bëgg nañoo liggéey waaye gis ñu fu ñu jàppale kon nag bi yàlla dogalee ngeen ñëw fii fas yéen ñoo jàppale ñu ne ñoo ngi seen ginnaaw fas yéen leen jàppale ba soobee suñu borom ndax bar nañu fi jaar kat bar nañu fi jaar kat ndax ñu ba taay dem te defaluñu dara ñun nag am nañ yaakaar ci yéen ndax sëñ Fallou Mbacke képp kum jiite yaakaar naa ne yaakaar tas mukk yaakaar tas mukk xam nga xam nga sëñ bi dëkk bi ñun ñi fi man dara ñëpp xamante nañ Asoukabe ci jàmbaar yi la bokk Asoukabe bokk ci jàmbaar yi bokkoon ci xale yi gën a xarañ ci politique ma di ko bu baax xamante nañ bu baax kon bu sëñ Garas Kaltoom jóge ñëw Gede fekk si fi Astou Kébé ñun ñëpp am nañ ci kontante ndax nag xam nañ li man xam nañ li man bu baax waaye may dellusiwaat yéen jigéen ñi ci li nga xamante ni si président Macky Sall defal nañu ko ñun jigéen muy sagub jigéen ndax président Macky Sall su yëkkatee mimiture Touré muy jigéen mu teg ko ci kaw ne jigéen laa jiital na góor ñëpp topp ci moom waaye loolu suñu sag la jigéen ñi mu walbatiku ñëw tuuba gi nga xam ne ñun sëriñ Touba rek lañ bëgg te Serigne Touba rek lañu am mu ñëw indil ñu Serigne Garas Kaltoom sëtub Serigne Fallou bi nga xam ne amul benn sens di ci dëkk bi tey boo dee wër kilifa gi dàq wuy téléphone ci dëkk bi sëñ Garas Kaltoom la te du tëji buntam sëñ Garas Kaltoom këram amul buntu kër. bundu kër kon kooku ku ko sa carte bu ëllëgee wëccoo ko ñu leen di ñaan la trente et un jigéen ñi buñ ca eggee ndax dafa am benn phénomène bu génnaat Touba buñ ñuy naxe tey jii ñu ngi dàmbali waa duggaat ci dëkk bi di ñu wax naan Abdoulaye Wade taalibe Serigne Touba kenn wérante wu ko waaye Abdoulaye Wade politique a tut Abdoulaye Wade nekkul ci liste ma nga jaf France toog di nopp lu ñu koy ñaanal mu wér waaye bu ngeen di fal majorité assemblée nationale na ngeen fa yóbbu koo xam ne du tëlimal dara bu yoon wi na ngeen fa yóbbu koo xam ne du nekk assemblée di fa xeex ba ñu xeeb yoon wi na ngeen fa yóbbu doomi soxna joo xam ne kenn du yab yoon wi di ko jaare ci moom na ngeen fa yóbbu doomi soxna joo xam ne kenn du yab yoon wi di ko jaare ci moom Serigne Galaskal Toom nekk na assemblée nationale juróomi at sans défaut kenn mënu ko dafa rëdd bu ruus sëñ Galas Kaltoom amul sens interdit ci dëkk bi nekk na assemblée nationale ba jóge fa waxu fa wax juñ koy xeebe xeebuñu Touba bañ xeeb ci au département bi Mbacké bi nekk ay jàmbaar nekk ci ginnaaw sëriñ Galas Kaltoom xale yi wax ne ñoom dañuy jooy waaye sëñ Galas Kaltoom moo leen nax kon ñu ngi leen di sant bu baax gis nañ seen taxawaay mbokki Guédé maa ngi yëkkati ay kaddu ci turu sëriñ Fallilou Mbacké di sëriñ Galas Kaltoom Mbacké ñu ñëw fii tey ngir seet si leen ànd ak délégation bu am solo ñi nga ànd ak suñu mag Serigne Isaaxa Mbakke moom Serigne Moustapha Bassirou aussi ñi nga ànd ak Serigne Modou Mamoun Niang aussi ñi ngi ànd ak Serigne Moustapha Bousso ak Serigne Jili Mbakke Pofdi ak Soxna Ami Mbakke ak Serigne Abdou Khoudous Mbakke moom Serigne Cheikhouna Abdou Lahad ak Serigne Moustapha Mbakke di doom ci Serigne Gass Kalsoum ak Madike Diang mi nga xam ne moo yor coordination yoon yu ñu war a jëm ak. Ibrahima Sall ak soxna Ami Mbacke mm-hmm. xam naa du ma mën a lim mbooloo mi yëpp waaye mbooloo mi ñu àndal yëpp ñëw nañu fi tey ci turu Serigne Gal Serigne Gallas Kaltoum mm-hmm. ñëw si aussi jeunesse famille bi ñu ngi ci biir délégation bi mm-hmm. ñu ñëw tey fekk si soxna Assou Kébé ngir seet si ko nemmeeku si si ko ci turu Serigne Fallilou Mbacke gis nañu dalal bi ngeen ñu dalal am na ñu mbégte ci dalal bi ngeen ñu dalal dégg nañu kàddu yi itam nag ndax damay wax ni yéen jigéen ñi yéen yéenee avenir u Sénégal ah. parce que li ëpp doole ci Sénégal bu dee commerce la li ngeen ciy daj ci ay coono kenn daju ko ci bu dee suqali seenu gox la li ngeen ciy daj ci ay coono kenn daju ko ci bu dee dimbali seenu njaboot la li ngeen ciy daj mën naa ne parents yu góor yi sax dajuñu ko ci. kon yéen li leen war mooy à chaque fois ñu di leen dimbali. mais nag ñoom espoir boo xam ne dañ koo tegoon ci dëkk bi muy président de la république monsieur Macky Sall ñu tegoon ko ci réew mi mu nekk fii di liggéey liggéey liggéey boo xam ne ñëpp teg nañ seen bët mu tegoon ay plan yu am solo plan yooyu yëpp yaakaar naa jigéen ñi sax ñoo ci gën a gis seen bopp góor ñi lu mel ne lu mel ne plan Sésame président Macky Sall liggéey na ci lu am solo ak jigéen ñi mu teg ci beneen plan Sésame boo xam ne familial la tudd mooy bu njëkk da nga daan gis ne jigéen ñi bu ñu musaan di dem ci hôpital yi boo musaan a diggante bu la woowee yow mii sa borom kër ne la sa sa jabar dafa war a opérer da ngay tiit ndax financement yu bëree bëri léegi nag président Macky Sall dindi na ko fi léegi boo waree am doom war a opérer gratuit lay doon nga ñëw mu indi fi promise promise ku ne xam ne ne Macky Sall moo ko fi indi financement islamique boo xam ne amul benn intérêt indi fi lu mel ne DER ak yeneen financement te li ci ëpp solo ci jigéen ñi la jëm boo xoolee boo xoolee ay at ci ginnaaw indi woon na fi benn projet boo xam ne moom la ñuy wax bourse familiale mu indi ko ci dëkk Touba jël fi lu tolloog 20 000 di leen financé ci gratuitement indi fi beneen plan boo xam ne vers Covid 19 bi la dugg na biir Touba jël fi lu tolloog 30 000 kër dimbali leen gratuitement kon ku mel noonu buñ ko amee. mu jàppale dëkk bi ci point yëpp point boo jàpp rek ci xalaat Macky Sall taxawoo na ko dëkk biir dëkkub Sëñ Touba jàpp ak Cheikh Mouhamadoul taxaa ba sëriñ bi jàpp ko xam loolu gërëm ko wax ne fa ma la dénkoon bërki démb ci ginnaaw sëriñ Touba fa laa lay dénkaat ñun nag li nga xam ne mooy gàcce ci ñun mooy sëriñ bi mënta jël nit làq ko ci ginnaaw sëriñ Touba eh. te duñ dem jàppale kooku ca làq gam làkk sëriñ bi ci ginnaaw sëriñ Touba eh, li ñu war a def li ñu war a def mooy sàmm suñu baati kilifa yi nit bu fekkee da ngaa bokk ci dëkk juddoo ca dëkk ba yaroo fa te nanga woo sàmm sa baatu kilifa loolu yaa xam yow la engagé mais ñun ñu nga xam ay taalibe lañ eh. yaakaar sëriñ Touba fas yéene doon ay murid saadix lépp lu bi wax dañ koy jël dut ko baaraam jàpp te la sëriñ bi wax président Macky Sall Touba moo ko teg loxo ku sëriñ Touba teg loxo ku ko bëgg a daaneel da ngay daanu mbëreem sëriñ Touba mu ne su koo daan ma ngay ma ma ngay takki ay ndombam ci pays diiwaan Macky Sall bërum sëriñ Touba la wasalaamaaleykum